أعوذ بالله من الشيطان asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yéen mbokk yi nga xam ne yéen a ngi ñuy seetaan euh, tey jii nag ñu amal fas yéene amal benn tari alquran bu mag fii ci daaray Mawridu Zamaan di daaray Sëriñ Seexuna bu sa Gabon comme ni ñu ko baaxoo defee at mu jot rek tey nag tollook ci weeru weeru tubaab ci euh, euh, ñu nekk ci weeru mai le 16 mai tolloog tamit ci weeru ramadaan tollook euh, fukki fan fukki fan ci weeru ramadan 1440 ñu comme ni ñu ko baaxoo defee rek ñu indi leen fi benn tarif conférence bu bu am solo. conférence nag dana demee nii suba gi dinañ fi amal tarif alxuraan bu tarif alxuraan bi jàllee dinañ fi amal ay waxtaan yoo xam ni. Euh, thème bi li ko tax a jóg mooy daara ak ay yàqu-yàqoom loolu nag xale yi nga xam ne dañuy jàng ci daara ji ñoo ko fas yéene amal ba tey tamit dinañ fi jàllale benn sketch yoo am solo boo xam ne xale yi danañ ko jàllale euh, buñ paree ci loolu ku ñuy wax sëñ Xalil Mbàkke euh, dina fi def benn waxtaan waxtaan bi na thème bi mi ngi jëm ci wàllu jëw ak yàq der kon nag suñ mbokk yi ñu bokk teewlu waxtaan wi nga xam ne dina fi amee dina soobee yàlla incha allah. ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaar ñu ngi leen di barwaq di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi kilifa yi nga xam ni ñoo teew ci baas bi jëmmal ko mooy suñu kilifa yu am solo ak suñu kilifa gi nga xam ne mooñ ci jataay bi di soxna May Aliou ñoo ngi koy siyaare bu baax di ko jox wàcc waayam ah, mbokk yi mu mel ni jataay bii jataay la boo xam ni ci jataay yi daara yi la bokk jataay la boo xam ni jataay xamle la jataay la boo xam ni jataay waxtaane xam-xam bu ñu seetloo bokk na ci jataay yi nga xam ni mbokk yi nga xam ni ñoom lañ ko seqal miin nañu jataay bi ak ñun muy jataay boo xam ni saa bu ñu demee ba toll ci jamono bii ci weeru koor sëriñ Seexuna Buso waa daaira waa daaraam di mawridu samaan danañu amal benn gaaral boo xam ni ndongo yi nga xam ñoo fi jàng danañu ko def saa buñ ci tolloo nag yàggal ko mbokki taalibe yi ak mbokki jullit yi ak dëkkandoo yi ñëpp ñu ànd ko ak ñun ak seenub coona kon mel na ni jataay la boo xam ni jataay bu ñu miin la rawatina ci barab bi ñuy rawatina ci waxtu wi mbokk yi ñu ngi leen di baalu àq te di leen baal àq di ñaan yàlla suñu borom mu boole ñu baal ñun ñëpp te defal ñu ay ngëneel yu rëy rëy ci barkeb Sëriñ Tuubaa mel na ni waxtu wi bëccëg bi dafa xaw gàtt te li nga xam ni moom la war a def nekkul lu gudd waaye lu am njariñ la yoo xam ni incha mbokk yi kilifa yi jigéen ñi xale yi bu soobee yàlla lu ñëpp mën a jariñoo la incha allah fas nañoo yéene jàllale tarib alquran boo xam ni gone yi nga xam ne ñooy jànge ci daara ji ñoo fiy jànge ñi gaaral seen alliwo ci kilifa yi fi nekk ak seeni waajur ñu ànd koog sëriñ Abdul Ahad Ñang mi ngeen baaxoo xam ci waxtu yi mu nekk ak yéen mu ànd ak yéen ci tari bi incha allah ñu fi dégg tara yu am solo ci alquranul karim bu ñu jógee am na benn xale boo xam ne ci daar gi la wattoo moom it incha allah danañ ko jox ab saadam ci teewaayu kilifa yi waaye des na def ci moom ab taxaw seetlu boo xam ni buñ ci yeggee danañ ko gën a yaatal ci jëmm yi danañu fi it gone yi nga xam ne ñu ngi fi nekk am na benn jataay benn jataay buñ fi bëgg a def boo xam ni ñoom seen bopp ñoo koy amal di ci waxtaan ak mbooloo mi ci wàllu xew-xewu jamono ak ci li nga xam ni moom la war a wax ak fi ñu war a waxee ci mbooloo mi ndax yu am solo lay doon moom it incha buñ ko digloo danañu ko fi indi am na it ay tuut tànk yoo xam ne it ci daara gi dañu jànge am na lu mel ni benn film bu ñu bëgg a dawal gaaral ko mbokk yi seen yaay yi ak mboolem njaboot ji loolu lu am solo la doon buñ ci àggee incha allah ñu bàyyi ko xel buñ demee it ba ci cëppaandaw gi incha allah Serigne Khalil Mbacke moom Serigne Moustapha Afsa mooy ki nga xam ni moo war a def waxtaan wi ànd ko ak ñun waxtaan wi it ñu koy def ci soo sonn muy ñaaw njortu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 الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر بهره والذي أهدى rajal mar'i وجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم جهر ما يخفي يعلم جهر ما يخفي ونيسرك لليسر فذكر النفقات الذكر سيذكر من يخشى سيتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى فذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صلح الله العظيم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 إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم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 والذي قدر بهره والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم جهر ما يخفي يعلم جهر ما يخفي ما يخفي ونيسرك لليسر فذكر النفقة ذكره سيذكر من يخشى سيتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى خذ لها من تزكي فذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا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 كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم منذر منهم وقال الكافرون هذا صاغر الكذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبر على آلهتكم إن هذا لشيء يرام ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا لشيء يراد أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في زك من ذكر بل لما يذوقوا عذاب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 تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب ذي التول لا إله إلا هو وإليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا إلا الذين كفروا فلا يعرفك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليعوزوهم وجادلوا بالباطل ليدحدوا ليدحدوا به حق الحق فأخذتهم فكيف كان حقاب وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا على الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد صدق الله العظيم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 mi Bousso yal na fi yàgg tawér ku ne amiin yal na fi yàgg a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi faatiris samaawaati wal ard والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى أجنحة مثنى وثلاث وأرباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتق الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا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 كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما السماوات وما في الأرض وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة على الآخرة ويصدون عن سبيل الله عن سبيل الله ويبعونها عوجا أولئك في دلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا إلا بلسان قومه قومه ليبين لهم فيدل الله من يشاء ويهدي من يشاء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 الدين الواقع والسماء ذات الحبق إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من فك قتل القراسون الذين هم في قمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم وهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما لهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين صدق الله العظيم maa ngi ñaan si seexoon naa daal na fi yàgg tey ma ñaanu ummi njaay du mu bëgg yàlla na ko yàlla defal bismillahi rahmani rahim يصلون ما أمر الله به أن يوصل يخشون ربهم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم غير ممنون وإنك لعلى خلق عسيم فستبصر ويبصرون بأيكم سبيله بمن ضل عن سبيلي وهو أعلم بالمعتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل خلاف أجمعين هماس مشاء بنميم مناع للخير مقتد نسيم صدق الله العظيم سن شيخنا لم بغي يالنا كو يالا سن كوبا ديفال موك عبد الرحمن اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما غوى الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألون بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آية عليهم آياته زادتهم إيمانا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 المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما بما الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطري من المؤمنين أنفسهم من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوريد حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفي بعهده من الله وبصروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم maa ngi ñaanal Serigne Cheikhouna Bousso mook Serigne Abdourahmane Sam yàlla na fi yàgg te wér. أعوذ بالله من الشيطان